ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha Tine ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na ay ci ñu dem ah, naa leen bu baax ñi topp ci Leewtoo TV comme niñ koy defee ah seen émission mbër champion maanaam émission bi nga xam te ne moom lañ jagleel képp ku daan fee ca Iba Mar nag ka jëloon raw gaar ko gis nañ ko di mbay guy gi poulain wu tafatin boobu daal di daan Mame Balla ak jëli ba mu benn wér nañ ko daa nuyu rek laaj ko nu loolu dundee combat bi mbay guy gi maa ngi nuyu nday màgge maa ngi lay fay di nuyu waa Leewtoo ah di wax ginnaaw ba nu sant yàlla julli si yonent bi ñuy gërëm suñu ñaari waajur di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe maam Cheikh Ibrahima Fall Lamb jërëjëf sëñ Tafa Diouf sama sëriñ borom boo xam njaañ maa ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen nuyu baax ginnaaw ba ñu nuyu naan la félicitation mhm. soo doon dikkaatal ci làmb ñi nga ko bëree ñu ngi ci dikkalaat décortiquer ko waaw balaa loolu xam nga dañuy sant ñi ànd ak ñun ñëpp nday mhm. Mbàkke mhm. parce que dañu génn Medina gépp génn Medina Rëbës ñaay cokkeer Fass Colobane hmm? kenn desul benn tëli hmm? waa Kasoor parcelle ñëpp génn kolobaan sama mag yi ne foofu ñëpp génn Medina bawol bawol yëpp génn sunu waa dëkk waa refan refan boox réew maawa ñaañaar ndereb fu daay ah ñëpp génn ñëw jàpp si kombaa bi ba yàlla sunu borom yor ndam yëkkati ndam jox ñu ko dañuy dañuy remercier ñëpp ñu ngi remercier waa Medina yëpp di leen wax ne jàppale nañ ñu yàlla defal nañ ndam ñu ngi kontaan ci ñoom bu baax di ñaanalit waa bawol ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp daal di wax daal yàlla na jàmm yàgg Amin dama bëgg a dikkalaat ma ci combat bi naka nga ko bëree ñëwaatal nit bi. combat bi naka laa ko bëree maa ngi maam Balla. arbitre dafa soufflé. Mhm. ñu léewtoo dem retaraal dox dem ci saaku yi taxaw foofu léewtoo arbitre atte mhm. ñu ñëwaat ba si diggéew bi arbitre arbitre soufflé bi mu soufflé nag ma dem ñaar ma dem retaraal tuuti taxawaat dal di dajeeg moom. Mhm. bi ma dajeeg moom laa ko méb mu ne nii ma méb ko mébaat ko mu aj gàtt yi ma daw song ko ma ko songee mu rasu ma jàpp ngem yaa ma gën a xam téye ndengeeñ ko téye ko mu bëgg a jàpp ma xañ ko ngem mënul jàpp bëre bi métti foofu quoi. Mhm. léegi mu jàpp ci téere yi ma takkoon. Mhm. léegi foofu damay def ay mouvement rek ba arbitre àtte ma dindi téere yi nag mën a bëreeg moom daan ko. maanaam instant boobu moo moo li ko yàggal noonu sax téere yi la rek yi mu jàppoon noonu quoi. Mhm. mais dama bàyyi ba arbitre ba ma dindi yi ma ko dindee bi ñu suuflewaatee dama ko song rek def action bi mu jeex. mu nekkoon combat bi nga xam te ne expérience la contre la jeunesse maanaam tey jii jeunesse bi moo triomphé nga daan maam Balla. Hmm. préparation bi noo ko dundee. préparation yu métti ànd ceg sama mag tafaatin hmm. mu teg ma coono yoo xam ne métti na torop torop torop mais tey sant yàlla ah. Hmm. parce que mooy loolu daal. li ma ci yëg instant bi moom yaa ma gën a xam. yëg naa ne li mu def ci man tey maa ngi gis door a gis njariñ la quoi bi bët setee. parce que mooy loolu daal maam Balla grand la maa ngi koy félicité. di ko encouragé di ko wax ne làmb nii la quoi beneen yoon buy bëree bu bëreewut ak ku dëkk bawal rek yàlla na ko yàlla may ndam quoi mais sant yàlla rek daal mm-hmm. sant. Mm-hmm. ñu gis Iba Mar Iba Mar fees dell bu ñu gëstoo fépp ñu gis fa nga mooy mbay gu ay supporteram mm-hmm. mobilisation boobu. mais mbooloo mbooloo bu takk topp la. Medina Medina ñëpp a génn jàppale ma. est-ce que dégg nga ma bawal. Medina Rëbës. ñaay cokkeer Fass Colobane Parcelles ñëpp a ngeen jàppale ma. xamal ma la wax man ñoo ñoo ma jàppale dooleel ma ma ñëw ak waa Ndakaaru ma ñëw yàlla sunu borom suturaal ma ñu ànd ak man bëgg ma te yàlla tax defaluma leen lu tax ñu topp ma. barke alxuraan mais nag sant yàlla rek. maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp ñëpp ñëpp. di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp di leen wax ku ne daal yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal mais bëgg naa ci ñoom daal. ñoom ñoo xam lu ñu bëgg waaye yow yaa xam li nga bëgg loolu moo nekk sa kanam fu mu ne nii. waaw li ne sama kanam moom duma laaj kenn ma laaj kenn waaw du laaj kenn képp ku ma lam boole rek ma bëree moom. doo laaj doo laaj kenn dama ne la Mbaye Gouy Gui déglu mm. ma. bopp xaw ma bët yennul waaye xam na li bopp attan. duma laaj kenn. instant yii la moo nekk sa kanam. du kenn ku ñëw baax na. Franc bëgg nga. non déggoo ma du ma fi tudd turu mbër kay. di man maa ngi tudd turu mbër instant bi ñun ñoo daan. déggoo de. war a fekk seen mag yi ci kaw. soq bëgg nga. du ma tudd turu kenn. bëggoo jéen. du ma duñ bëre. lu tax nga bokk Medina <laughs> waaw. Ah, la moo tax nga ñemee leeral bu jéen mi ñeme woo leeral yeneen yi maa ngi sama gaa yi ñoom Sidi ñii combat bi lu ne lañ ci daj. bëgg naa si yéen. ak sama maam seex sama rak taala yi. Mhm. waaw ñii dañu son ci combat bi kola gaa. Mhm. booy koñ bi. booy koñ bi lu ne lañ daj gars fii lañ fanaan ba bët set dara du dugg dara du génn. ñu mhm. maa ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm. Mhm. man ku ñëw baax na. ku ñëw baax na day wax. Sa Thiès na. bilaay ku ñëw baax na du ma tudd turu kenn. yow tolluwuma ci làmb fi mu nii. dem fi mu ne nii xam ma waxoon. Mm. combat bi moo lay àggale ci kaw léegi bëre naa daan naa naa bàyyi amateur yi siise ku ne kooku ngay bëree rek baax na. pare nga pour bëre moom pare naa pour bëre moom. ñu for loo xam ne saw ci béy bu béy lañ ko foree waaye yaa ko wax. Mm-hmm. nga ne kii di Boy Niang numéro 2 da nga koy jox Tafatine Tafatine jox ko Balla Gaye yow nga jël yaa ko wax wala waxoo ko. loolu maa ko wax waaw. tu nga doon teew ñu nataal. waaw lu war a nga dama koo xam rek dama am ne Tafa da koy duma daan ko incha allah ñu jox ma ko ma daan ko. yow jàpp nga ne mën ngaa daan Boy Niang. Boy Niang dama ëpp doole. Boy Niang mbër may mbër muy ànd ak i mbokkam may ànd ak samay mbokk muy entraîné may muy lekk may lekk muy noyyi may noyyi le làmb ji moom rab amu fi jinne amu fi leneen amu fi kuy soppaleku nag mën na noo bañ a bëreeg yow mais nit nii rek. nit koo mën a doon dañuy bëreeg yow ragaluñ ci dara man Tafa chaque jour damay contact ak moom di yëg lu neex di yëg sama bopp kon xalaatuma menn mbër mu may esti ci àdduna. Hmm. waaw. jàpp nga Tapha Tine instant bi day bale booy ñaar. man bale moom amut lii am yàlla sunu borom rek ko ko xam mais am nañ droit sabab lu ñaan yàlla nee na ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen. est-ce que dégg nga sant nga dool wax day logique. waaw euh, waxuma ko pour wax ko. Mhm. Hmm? Tapha Tine tey jii su daanee euh, Tapha Boy Niang bu daanee Tapha tey jii du la xool ko saabu ne nga nga koy daan. ba tax na yow nga ne da nga koy moom du daan. yàlla sunu borom Tapha Tine lay àndat ci kàttanu yàlla bu suur ba lool maa la ko boo ñaa daal ngay xaar Tapha Tine daan ko pour yow nga jox ma ko ma daan ko. Hmm. mooy loolu booy ñaa mooy loolu. yaa ma gën a xam. man mbay guy bi daf maa rawaanam jësig la. la. rawaanu booy ñaa jësig la. la jësig man krokodil. waaw kay ma rek ñii nga day jàpp arrière fekk dugul ci ndox mi du lekk. yaa gën a xam. da ngeen a booy ñaa ba xam technique bu bëri. Ah, rawaanam ci boppam laa dëgg dëgg rawaanam bi nga xam ne moo ne ci moom hmm. jësig la. Eh, sa rawaan yow lan la. non man sama rawaan moom du ko wax kenn. ah mais man lu muy xoolee mu xam boppam xam naa boobam léegi waxal sa bos yow ñu xam. non sama bos du ko wax kenn bëgguma kenn xam ko. mooy loolu. mbay gu mi daal damay kontaan ci hmm. bàyyi nga sant ñi la jàppale. Hmm. daal di fay keppantaar émission hmm. mais kontaan rek di nuyu wépp waa Medina. di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. maa ngi ñaanal sama papa Aziz Ndiaye. yàlla sunu borom mi am fay yàlla na ko fay jàppale na ma sama papa Abdou Aziz Ale Ndiaye jéey promoteur aw ma fayam sama papa la jàppale na ma Baye Ndiaye borom alburaax maa ngi koy bëgge bu baax moo Gibson production ak sama papa Abdou Aziz Ale Ndiaye ale ale yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant jàppale nañ ma seen rakk seen xarit mbay guy gi jàppale nañ ma aale aale yëpp maa ngi leen di gërëm maa ngi gërëm Cheikh Thiaw Sandaga sama doomu ndey sama xarit mhm. baaba kër bu Mod Lama maa ngi koy sant di ko gërëm Mod Lama maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm moor Diouf mhm. maa ngi gërëm ñëpp sama coach su Boña sama coach Boña maa ngi koy bëggee baax di ko di ko ñaanal jàmm moo ma kaa camp Colobane gendarme yi ñoo ma doon entraîné lu metti mooy loolu maa ngi gërëm coach su Boña di nuyu sama mag yi ne Colobane ñoom Cheikh ñoom Ousmane Balla mbay ñoom Gas Sëñ Modou sama mag yi ñoom Assane Ngom ñoom Ousmane Ngom maa ngi nuyu ñëpp ak ñoom Lamine Ngom ak Lam jiite maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama gaay yi maam Cheikh sama rak maa ngi koy bégee Sidi sama jarbaat la ak taala mi maa ngi leen di bégee ñoom folo gaa mbay ah Mor borom jooy yi booy bi bi may dug ci bi jooy yu métti la jooy yaa ma gën a xam. tiit la doon jooy wala non xam ma rek mooy loolu quoi ma ne leen dee rek mais mooy loolu ñu ay gërëm xam saa nag. sunu grand boo xam ne grand bu baax la nekk fii di def social. Mhm. mu jàppale nañu ñu ngi koy gërëm bu baax xam saa. Mhm. di ko ñaanal jàmm moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barki Seydina Mohamed. Mm-hmm. di bëgg waa Medina di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa Bawol fa ma dëkk ah. waa Leewtoo doo leen nuyu. waaw maa ngi nuyu waa Leewtoo di kontaan ci ñoom di leen wax ne am na solo ah. Mm. yéen a def lu rafet. te ñëpp a leen di siifar yàlla na seen jàmm yàgg ba ngeen yori télé télé télé ci barki alxuraan. Amin Mbaye Gouy Gui la woon dañ koy kontaanee bu baax waaye dama ñu kontaan aussi ñu ñu fi fekk ah mafia bi di leen bëggee ba cat ku ci nekk fekk na sa wàccuwaay waaye mention spéciale kenn du moom sama caméraman bu bees bi moomoo maane kenn du yow ci mi réew jaajëf ah peace and love mañ pro sama xarit bopp bi nee nag yaa ko solal nga waajal ko. kuy maañ maañ pro eh, waaw Mansour Fall. Mansour waay kooku sama doomu ndey loolu jarul sax mu koy wax ah, kon baax na. waaw Mansour sama doom yaay la sama xarit la moom lu mu bëgg mooy bañ. Mm. waaw noonu nag. mbër ak champion loolu nee naa leen émission boobu mën nañu jagleel képp ku daan ah nee ku bëgg toog ci émission bi da ngay daal daan jël bu amul benn werante ku daanu doo fi dëj déedéet émission bi ku daanu duñu wax ak yow moo tax mu ngi noonu top 5 lañ jëm borom buddi ba ci kaw dóor ci suuf doole doxul jàmm doole doxul jàmm laa dama koy jaajëfet bu baax noonu laay def jox leen dig daje ci semaine beneen semaine ak beneen champion incha allah jaajëf ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin na ngi dóor suuf attention Sa Thiès ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès daan na